auzu billaahi mina seytaani rajiim yi bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu wasi la Cheikhul Khadim di leen nuyu bu baax di leen ziyaare yéen ñi baaxoo saa ne di seetaan Waarwi TV nekk àllu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Waarwi TV nag di di leen sant bu baax te di leen gërëm ci li ngeen xam ne saa su ne yéen a ngi koy bàyyi xel di nuyu nag di ziyaare Serigne Mountakha Bachir yàlla fi yàlla yàggalool fàll ci wér li cëram di nuyu di ziare si Cheikh Jëmb Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal lool Fall te wér gi cëram di nuyu mboolem kilifa diine bu nekk fii ci département bi tey nag suñu émission nekk spéciale euh, ci maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan nekkoon kenn koo xam ne dafa bokkoon ci Serigne Touba bokk ci njabootu sëriñ Touba ndax mënoo tudd si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te tuddoo maam Cheikh ñu koy màggalal macha allah at mu jot nag dañ ko daan màggal daaw li fi jaaroon tax mu meloon noonu ren nag euh, waa Daaru Salaam woote ko woo mboolem jullit yëpp mboolem taalibe yi fu waaye man di nekk fii ci àdduna euh, nga ñëw ci màggal gi. te sellal ko te def li nga xam ne moom la di li njàngu alxuraan mi ak lépp ñu def ko ni nga xam ne noonu la ko njaboot gi bëgg li jaal tamit seen xalifa yi fi jaar yépp nelaw di ziyaare suñu xalifa bi fi nekk di ñaan suñu borom guddal fanam te wéri di cëram ak mboolem koo xam ne rek sëtu nga ci maam Cheikh Anta rawatina suñu xarit suñu jëw di sëriñ Mamoun Mbacke moom sëñ askede di sant di gërëm sëñ Aliou Mbacke ndax waa Darou Salaam dana bokk ci ñun tey na suñu jotaay li ma koy wax saa su ne dañuy ànd ak ay ay jàmbaar yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba nekk kenn koo xam ne macha allah ñëpp xam-xam-xamam oyofam ak mbaaxam ak dëggoom ak bëgg gi nga xam ne bëgg na ko Cheikh Ahmadou du Xaadimu Rasuul ba képp koo xam ne bokk nga ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul rek ca mag ñaa ñëpp boo ko ci wootee waxtaan da ciy sawar waxtaan la ci waxtaan sell bu màgg ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk yi nuy seetaan waar wi TV ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara euh, di nuyu Soxna Jaara di ko ñaanal jàmm ak tawféex di rafet lu baax a baax jotaay yi muy faral di amal nag te mu koy jëme ci pénc ci lislaam yëpp buntu kër Sëriñ Tuubaa yëpp Xaadimu Rasuul te ji nag mu xewle ko Daaru Salaam ñu ñaan suñu borom mu defal nu tawféex ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te mu doon jataay bu jariñe nuy ziar mboolem kilifa yi Daaru Salaam yëpp di ñaan yàlla sunu borom tàmbale ko ci xalifa bi. ak mbal ñëmu boot sunu borom yàggal ko fi may leen wér màggal gi ñu dugg ci ci jàmm nit ñi wuy si ñu màggal ko te lépp daje ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëmul maam Cheikh Anta Cheikh Sidil Muxtaar noo ngi ziar tey ñaanal bu baax ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullah yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo dolli tawfiq eh, ba lépp li muy sumb bëgg cee liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ci lislaam lépp mu àggale ko ci kàttanu yàlla ak yërmande mu mbaaxam ci barkeb Serigne Touba ba am ci ngërëmul Serigne Touba la gën a kawe ci mboolem ngërëmi Serigne Touba yëpp te ànd koog taalu ba yëpp nag te ànd koog jullit yëpp bismillah jërëjëf euh, sëñ Amadou ñu delluwaat di la nuyu baax di la ziyaare di jaajëfal xam naa sa xat nga waaye danoo bokk ci sa njaboot. Mm. moo tax saa su ne buñ la soxlaa rek baas nga ubbi ñu say bunt di xëj ziyaare bu baax sa sa kilifa mm. ah, muy sëriñ Moutala Baas ak mm. njabootu sëñ Bay Baas gépp ñu ngi leen di nuyu ndax ku leen xam-xam leen ci xam ak ko oyof ak taalibe te loolu rek mooy dëgg. nit ñi moom fan ku ne fa nga mën a fenn rek mooy gëm yàlla yonent bi ak taalibe ndax yoonu murid loolu ñu am. Ah, sëñ Amadou buñ bëggoon a xam ci saayir kan mooy maam Cheikh ndax baatin ba ëpp naa waxtaane xanaa ñu cof ca tuuti. alhamdulilahi rabbil alamin kan mooy maam Cheikh Anta ni taarix baaxoo euh, bu ñu ne kan mooy diw ñu indi askanam an nasabu wala xasab ñaar yooyu ci la ñuy gën a euh, waxtaane doomu aadama ju mën a doon la ci yonante sallallahu alayhi wa ba ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ba ci nit yu baax ñëpp euh, noonu lañu ñu leen di waxtaan kon kan mooy man sa ànd ci gàttal daanaka sax mën nañu wax ne raniyun ani taarif mooy du soxla ñu naan di woy baayam ak di woy yaayam waaye ginnaaw ba fii nu toll nii boo ko waxee am ñu ci jëriñu wax ko yi lu am solo solo lay doon mm-hmm. maam Cheikh Anta aw turam mooy seex Sidil Muxtaar ñu jàpp nañu ngi ko tuddee Cheikh Sidil Muxtaar al muy borom wilaaya bu mag di cheikhu tariqati bokku ci ñi yan wan raayaw tariqa al qaadiriya doonoon ko relation lool ak maam Mor Anta Sali mi wajuru Cheikh Sidil Muxtaar mu tudde ko ko maam sëriñ Mor Anta Sali mooy woy juróom sëñ Mor bokk ci njabooti maam Balla Aïcha maam Balla Aïcha di caatum maam Maaram sëñ Fallu nee na mbàkke mbàkke yi Maaram mooy sunu àddinaam tax booy lim ci rek man ngaa taxaw Maaram mooy seenum àddinaam kon man nga ne Maaram moo caatloo Balla Aïcha maam Balla Aïcha meññ Sëriñ Mor Anta Sali sëriñ Mor Anta Sali meññi maam Cheikh Anta radiyallahu anhum waaye bu ñu ñëwee ci kër yaayam itam mooy juróomu jigéen ñu koy waxee dañoo wax ne soxna Anta Ndiaye Mbakke di gën naan maam Cheikh Anta Cheikh dañ koo jël daal di ci bootal turu yaayam loolu nag lu bari la lu ko wolof di def muy seexum maam Anta moo tax ñu ne maam Cheikh Anta. soxna Anta Njaay Mbakke mooy waajuram soxna Anta Njaay Mbakke moomu maam Ibrahima Awañang Mbakke mooy waajuram maam Ibrahima Awañang Mbakke maam maharam mooy waajuram kon kii nuy bëgg a waxtaane mooy mbokkum sëñ Touba ci géeñoo ak ci meen hmm. mooy mbokkam sëriñ Touba ci kër baayam ñu bokk benn baay waaye mooy mbokkam sëñ Tuubaa itam ci kër yaayam ñoom ñaar ñëpp kenn képp leen meññi muy maaram maam Cheikh Anta sëtu maaram umman wa aba maaramay maamam ci ndeyam mahramay maamam boo jaaree ci wàllu baayam ñoom nag wax nañ ko ba tàyyi ay mbàkke mbàkke lañu bunt bi ñuy wax fuuta nga xam ne mbooleem surafaaw yu duggan ci Afrique sowu jant bu ñu ëgsee Sénégal bunt boobu lañ jaar ba tax na diine yi Sénégal yëpp ñi ci gën a fés te taawu ko ñoom ñëpp boo leen dàqoon tey ñu delluwaat Fuuta tàmbule ko ca Cheikh Omar Fouti Thierno Souleymane Baal Maba Jaxu Ba ak Cheikh Ahmadou Bamba Alxaaji Malick Si toppe ko noonu ñëpp rek ay tukkulóor lañu boo wàññee seen benn ñaar bala nga ne ñetti maam ñeent rek dégg ci koo xam ne xëy na déggulul sa wolof ay tukulóor lañu gunt boobu lañ jaare ay shérif nag lañu yoo xam ne ci yu penku yi lañ bàyyi ko woon bokkoon ci ñi gàddaay ngir tasaareel lislaam rasulullahi lëggéeyal ko sallallahu alayhi wa sallam bàyyi seen lépp ngir taxawal lislaam te xam ne loolu yiw rëy moo ci nekk mhm. kon nag maam Cheikh Anta li am solo mooy askan wu baax suñ borom defal na ko ko askan wu tedd askan wu sell woo mhm. xam ne ku ci feeñ mel nii mu mel dañuy wax ne laa xarwa du doon jombe lu mm-hmm. ñuy wax ne loolu mooy ay ay ay la yéwén wolof di wax ay la arab di ko wax laa lii de du njombe mooy askan wu tedd nii ku ci feeñ ndax bala ñuy ëgsi ci Maam Cheikh Soxna Jaara damay sawar bu baax ñuy dellu siwaat ci kan mooy Soxna Anta Njaay way juróom mm-hmm. gis nga koo séen mu baax ci àdduna mm-hmm. loxol ndeyam ci biiru mbaaxam te buñ ko ca génne woon bu mbaax ga rësut itam la ci des tuuti lay doon mhm. kon daal liggéeyum ndey xaw ma fu ñu koy laam-laamee waaye fii ci biir lislaam kenn du ko fi laam-laamee Soxna Njaay Mbàkke dafa jëf jëf ju rëy ju ju mag joo xam ne exemple la exemplaire lañ ko maanaam nit la ku ñu war a teg muy misaal ci jëpp jigéen ju bëgg lu baax mhm. ñuy sàkk lu baax ci néegub sëyam ci kër mhm. borom këram Soxna Anta Ndiaye Mbacke moo ko suñ morante sëli ñoo bokk lépp hmm. ndax ay doomi baay lañu Soxna Anta Ndiaye maam Ibrahima Mbacke ko jur maaram jur ko hmm. suñ morante maam Bala Aïcha ko jur jur ko hmm. xanaa ñoom seen ñaari baay ñoo bokk benn baay suñ sëli jël Soxna Anta Ndiaye def ko ab jigéenam li wolof di wax maako laxasaay Soxna Anta Ndiaye laxasaay ko maanaam moo koy wàcceel soxna daal sëñ moor am fu mu dugg soxna Anta Njaay ñëw wal cereem yeewub gàttam di mooñ cereem ak di ko tey ñuy séentu ab séet ngeen bal nu ci waxin wi ndax ay waxtaanu leeral ak jàngale noonu rek la mën a demee mm-hmm. ñuy séentu gan si kër siñ Moor Anta ba ñu demee ba guddi gi xaw a ñuul ñu jëli woon dellusiwaat ak seen yoxoy nen daal wax ni sëñ Moor de mbir ma war dugg na ci xam nga ne wor yooyu wor yu doy doy war la mhm. daanaam nag ci mag ñi daanaam daana xew soxnaante njaay daal di jóg faxasu daal ne gàcc day xaw ma nun koy waxee waaw gii gàcc fu nu koy waxee daal ne man de bu fekkee araamuma sëñ mhm. nañu ma fas muur ma ma wàcc ci kër gi mhm. dem liggéeyali ko waaye gii moom du ma seetaan mukk ñu teg sama càmmiñ ci réew te ci dara kon njaay moom fajal gàcce néegam bii fajal gàcce magam bu tedd ji mm-hmm. moo waral mu nangu ñu xutba ko fasal ko sëñ Mor mm-hmm. muy lu rafet lool lu jekk lu tedd mu daal di nekk nag ci kër sëñ Mor doon soxna doon ab jigéen doon ab taaru bi mm-hmm. doon koo xam ne li mu liggéeyal sëñ Mor Anta Sali kenn mënu ko misaal ci aw làmmiñ ma ne su ko bind mukk ci ay téere doon jàmbaar yi fàkk tëdd joo xam ne am na fi ci nam lu kenn mënta xayma di root di soq di bale di liggéey loolu waaru jigéen la fu jigéen nekk def ko mënees na caa bañ a nawe jigéen waaye am xol bu nangu nag ak yaatu goo xam ne koo am yaakaar bëgg mu ñëw ci kër gi ngeen bokk borom kër bokk liggéey bi loolu sew sew la boo xam ne jigéen ñu bari seenu mbaax agu ci hmm. waaye soxnaanta Njaay Mbakke rahmatullahi alayha ak mbaaxam dafa yeggoon foofu kero bi mu xoolee si mu radis li jaamu yàlla ga farlu ga mat ga maandu ga ragal ga yàlla durus alxuraan fanaanee naafila jooy kayit yëpp nekk ci moom mu xool soxna Mariama Bousso ca kër maam astawaalu ndeyam mu doon ndaw lu sawar lu farlu lu wattu alxuraan lu ragal yàlla. lu gëmm loo xam ne du xeppi bët a mukk xool foo ko fekk rek mu ngi ci positif mu ngi ci farlu mu ngi ci mu ngi ci jaamu yàlla mu ci daw mu wax ne soxna siide yi. man ñaanuma yàlla ñu jël ko di ko jox keneen kurul suñ mor sama sëñ bi. jaamu yàlla kii ci suñ mor de ak jaamu yàlla gii ci soxna jaara buñ ko su joxee soxna jaara bu fi liggéeyee. dana fi am loolu bépp dëkk waaye ñaanuma yàlla mukk moo feneen daa tàggu sëñ moor ngir dem kër soxna Asta Waalo mu may ko ndigal mu ref te sew sew bi gën a doy waar foofu mooy soxna Aysatu Waalo Mbàkke moomu moo yar soxna Anta Njaay moom moo jur maam jaara waaye moo yar soxna Anta Njaay loolu lu doy war la. xam ne ñoo bokk kenn ku leen yar ñoo kenn ku leen waaw ñoo bokk kenn ku leen yar. moo jur soxna jaara waaye moo yar soxna Anta Njaay. yar doom nag bu dugal ko ci kër wëlbati jël sa doom tofal ca mm-hmm. lool it lu diis la ci aada yi Sénégal mm-hmm. waxuma lool sax waaye lu na lu gën a sori ñaare boo duggee ci néeg takk fa soxna rek boo fa bëggaatee soxna ñu mm-hmm. jël jëlal na ci néeg nag waaye lépp melokaan wi daj na mbooleem aada yooyu ñu sancoon démb te yoo xam am gën a solo soxna Anta bi mu waxee soxna Aysatu Waalo mbirum soxna jaara ngir bëgg mu ñëw ca kër ga wettili ko Mm. soxna jaara daa teg loxoom ci gémmiñam ni ko loolu moom man xel moo ko war yow mën naa laa mën naa mën naa laa yor yar la ba nga toll ni nga toll ma joxe la foofa wëlbati ko jël sama doom ju may jur di ko teg ci kaw loolu mën a nekk waaye soxnaate ci xel mu sell ma ca laabir ga ca baax ga dafa wax soxna Aïcha ne ko waaw yaay booy yow boo ñu fekkoon maag soxna Mariam ñu suub di soq ndax dañu ko tere boo ma fekkoon ñu sumbam pour di fuur ndax danga nu ko tere mm. boo ma fekkoon ñu bokk di wëgg ab teen ndax danga nu ko tere lima lim ba mu bari li jigéen di siq ak moroom lépp soxnaan te soxnaa chut ko déedéet loolu de mu ne ko loolu dong nag moo fa nekk awul leen lum doon mu mii ni mu yaroo gis naa ci moom loo xam ne su demee ci góor gee te muñ fa mën na fa am lu nekk mm. loolu yi mooy jéego bi nos ñëw soxna jaara kër sëriñ Mor soxna Maria mu ñëw nag di as gor soo xam ne at ya bariwut doole ja bariwut ndax ndawul fukki at ñett fu mu tabbi mhm. ay atam bariwut ay doole doolem bariwut te kër ga di kër gu rëy liggéey ba bari mu ne soxna Anta moom duñ bokk mbukk maag yow wàññi gannaaw soxna ay chatu waalo sama sama ndey mënu maa bokk moom waañ mënu ma koo génne waañ ba noppi yow koy dugg ci waañ yow da ngay wàcc rek ma yenul la ko daal di yenu lépp ne ko fanku ci boppam Soxna Anta Njaay di ko jàppale di ko taxaw mu mel ni doom fi moom Soxna Jaara mel ni doom fi moom tey rakam mu taxaw temm ci jàppale dëgëral ko ba mu am fa kii mu fa am tey di Sëriñ Tuubaa Xaadimu waaye Soxna Jaara ci melaw Soxna Anta Njaay mm-hmm. mu ko ne jàkk xam ne yàlla jox na ko cir boo xam ne am amma qarib buñ dundee ci kanam tuuti adduna bépp dañ ci teg seen bët soxna ant daa déeyaat doomam jooju di maam Cheikh Anta ne ko seex mu wuyu ko mu ne ko sabak jii de yi dama ci bëgg waxtaan ak yow mbaa doo ko jàppe doom yu bàyyi mbaa doo ko jàppe mag mm-hmm. mbaa doo ko jàppee am nawle mm-hmm. dama bëgg nga jox ko sa mbir te def ko ab sëriñ mm-hmm. soo ko joxee sa mbir te def ko ab sëriñ bu la kenn jiitu ci moom bu la kenn ëpp la ci moom sa mbir dana baax addina sa mbir dana baax àlaxira loolu itam kiimtaan tàll gu rëy gun war a gën a mën a jàngate ci soxna Anta Ndiaye Mbakke sëñ Touba nag daana wax ne Cheikh Anta dama ko yoreel ay bor yu bari yu ma ko war a fay bor yooyee mu daan lim ne da ko war a fay nag loolu lii ma tudd daana ko ci tudd moom sëñ Touba Xaadimu Rasuul ci teete gim teete waajuroo ba indi ko fa ba sëñ ba feeñ fa radiyallahu taala anhu. Ah, maam Cheikh kañ la feeñ jamono moom. maam Cheikh mu ngi feeñ jamono 1860. Mhm. bu dee ci at yi gàddaay gi 1285 ama sharafa ci lañ koy natt ci la toll. Mhm. waaye ci diggante Soxna Anta Ndiaye ak sëñ bi rek. Mhm. laa la bëgg a nettali dara ñu door ak sëñ Touba ñëw na gaawaan fekk fa Soxna Anta ca Bawol mu màggat lool. sëriñ bi radiyallahu anhu dafa am fu mbàyyi ko dëpp ak si fa bu ñëwee maam Cheikh Anta dalal ko gàttandu ko bëgg a tàmbali tarang mu ne ko seex yow kat yàkkamti nga gan lool bu ma ñëwee rek nga bëgg waaye nag na nga xam ne sama ñëw sama yoonu tey wii du saw yoon soxna seema tax a jóg keroog sëñ Touba toggal na ganaar ci loxol boppam maam Anta lu doy war mm-hmm. toggal na ko ganaar ci loxol boppam nekk ca waañ wa maam Cheikh Anta yéemu lool waaru lool ci ju jëf waaw sëñ bi ne ko ma ci kenn jàppale waaw bi ganaar gi sottee ba upp ko ba mu sedd moom sëñ bi da ko jël ñëw ba ci kanam soxna Anta Njaay di suq di di maanaam di dagg ci loxol mu tedd la di ko seexal ci gémmiñ macha allah waaw soxna Anta yi jëfandiku léeg-léeg soxna ne ko ay Mbàkke da ngaa bëgg rek sama xol sedd te bég naa sama xol sedd na guyu fii nu toll waaw xam naa da ngaa bëgg rek sama xol sedd te fi mu ne sama xol set na guy fi mu toll nii bëgg naa sëñ Touba ba mu fa jógee daal di dikk jaareem Jurbel fan yu néew la maam Cheikh Anta ñëw. Hmm. ba mu ko séenee la ko ne Cheikh xam naa la tax a jóg xanaa dag may tàgge soxna Anta Ndiaye mu ne ko waawoo Mbacke waaw sa taaru mel na ne mu ne ko waawoo soxna jaaraama ko soxna jaaraama robu fii tàggu ma ne ma maa ngi dem siyaare ji sëñ Mor Anta Sali keroog ñu ko robee deqale ba fii nu toll ñemewu ma fàtte mukk di fa jiitu soxna na jaay sama kilifa te jii nag ru ko xam nga def na fa loo tax ma naa dem siyaare ji ko kon nag nañ ko yóbbu foofee ca sëñ Mor Anta Sali denc ko foofu kon loolu mbiri zahir yi ni muy taaru taaru mbir yu baatin yi ñëw na gën ko fedd bi mm-hmm. soxna jaara 1833 gëm tëdd poroxaan mm-hmm. ba jamono ju mujj ji ay at yu dul jeex ndekete xam nga mëntoon a dem ziyaara ji sëñ moo Anta Sali deqali ndax soxna Anta Ndiaye mii njiitul këram lay xaar bu àgg fa rek mu nga ko fekk waaye mu ko faa jiitu loolu kon lu yéeme yéeme la ci ànd boo xam ne suñ borom ko lal ci diggante soxna ant Ndiaye ak soxna Jaara waaye ci diggante soxna Anta Ndiaye ak Serigne Touba radiyallahu anhu soxna Anta moomu nag moo meññ sëñ Mbàkke ant waaye moo meññ Cheikh Anta itam chante wax naa la mu ngi gane jamono 1860. Mhm. mu ngi génn jamono 1941. ngir ñu yow tuuti ci biographie ngir ñi xamul man koo xam. Mhm. bàyyi ma ko joxoon ab sëñ daara bu ñuy wax ma chéri mu jël ko yóbbu ko ca Bargny foofee ca sow jant mu tàmbali fay jàng waaye diir bu néew Cheikh Anta jógee fa wax nañ daana wax ne mënumaa muñ sëñ Touba seen saa. sàkkaan di ko sori ay fan ak i weer at yàggu fa diir bu néew bi mu fa génnee ñu topp ko loolu ñuy wax dongob daara daw na dem seex daa daw dem hmm. dafa daw génn foofu jóge fa jëm si ci kër bàyyam bi ñu ko toppee ba ëgsi ci dex gi ñeene daa xuus ci dex gi ñeene ñi daa dox ci dex gi waaye kenn xamul fu mu jaar tànk bi daal ñëw na ba ci buntu dex gi tey it gisuñu fu mu ko génn kenn xamul fu mu aw hmm. leen rawe ay naar for ko mu doon ndaw lu taaru lu yéeme loo xam ne boo ko xoolee te xam dara xam ne am na lu nekk ci moom def ko ci seen i gileem bëggoon koo yóbbu ganaar jaayi ko jamono boobu naar yi loolu seen aadaloon karawaan moom ko dajeek moom rek boo moytut mu doy war borom dëkk ba gis ko xàmmi ko nangu ko ci seeni loxo dem jox ko sëñ Morat Sëli sëñ Morat Sëli jox ko sëñ da Abdourahman Lo mu ne moom jànqeen tàmbali di ko jàngal ba Chouara gannaaw bi mu si moom Mbàkke Bawol foofa la wattoo li ko tàmbalee min al baqarati a suratil fatxi foofu la ko jàngal alxuraan gannaaw bi nag la ko jibbal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax moo jekki ba ne sëñ daam daal man mënatuma fee nekk man daal sëñ Touba daal moom mënatumaa taw ko moom ko sa teg itam xel ma ngi ci mel ni bëgg gi sëñ Touba da koo feeñaale jamono waaw nga xam ne fee mu jaar nag fu mu jaar jaar na fa ñu rek waaye moo jekki ba ne sëñ daam daal faw damay dem sëñ Touba sëñ daam jox ko sëñ bi sëñ bi jox ko sëñ Mor sekk foofu la wattoo alxuraan daal di nocc ko waat ñëw ci loxoy sëñ bi ci lu mu gën a gaawe kon gis nga maam Cheikh Anta bu ñu ko xoolee dara génnul sëñ Touba dafa toppaat si dafa dafa dafa jeexaat ci biir sëñ Touba ndawam gépp ndax keroog mu gënee jamono rek bis booba Samba Tukulóor ka bind na ab téere Maamor Anta Sali bind ab téere sëñ Touba bind ab téere ñetti téere yi ñu takkal maam Cheikh maam seex ne moom laa ma sa takk ci àdduna leneen lu ko keroog it la ko baayam jëbbal sëriñ Touba ne ko mu ngi doon seex sam seexa buy dund sam seexa naka noonu it sam seexa hmm. loolu yéeme la moo tax si Moussa Ka ko yaa jëkk fab sa mbir ci seenu askan hmm. jébbal sëriñ Touba niruwul jël sa mbir ci seenu askan jébbal sëriñ maam seex dañ koo teel a jébbale kuy sant Mbàkke di di wuyoo Mbàkke mooy kin ci jëkk a jébbal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul hmm. loolu mooy yaa jëkk fab sa mbir ci seenu askan jébbal sëriñ tubaa niroowul ak kenn ba sëriñ Touba di woote fekk na seex moom jébbalu bu yàgg yàgg yàgg doon alali borom Touba Xaadimu Rasuul hmm. kon loolu day wane taxawaay bi amoon ci sëriñ su ko defee dañuy dellusiwaat rek jox la kàddu gi bala ñuy ñëw ci liggéey bi ci sëriñ Touba ak ni mu woon sëriñ Touba Xaadimu Rasuul hmm. radiyallaahu taala anhu boo defee loo bëgg li nga wax dafa neex loolu ba kee bëgg ko woon a dagg hmm. macha allah. Ah, di ñaan tamit xam-xam bi yokk lool diggante maam Cheikh ak Cheikh Ahmadou Bamba ndaxte nekk sa nekk ak sa mag jox ko cër def ko bàyyi def ko lépp la ma sëñ Fallou Mbacke doon wax ah, maam sëñ maam Fallou rakku ah, sëñ Modou Fari Xari seenum caat lu ne ma woon sëñ sëñ Modou sëñ sëñ sëñ Seexum sëñ Modou Fari Xari mooy sama lépp. Mm-hmm. waaye jël sa sa mag def ko lépp digganteem ak Serigne Touba. waa kay jërëjëf sëñ bi dem daa mel ni fekk na ko fa de. waa kay loolu dana ci ñëw léegi. Mhm. mooy li may junj ci ak njëlbeen. Mhm. fuñ ko yóbbu. Mhm. furut sëñ Touba jenn it rek la amati mooy yitte yi dem ci sëñ Touba. boo demee ca wolofalu sëñ Moussa ko ba mu def ci moom wolofalu am solo. am na ñeenti baat yoo xam ne moo ko mës a wax sëñ Touba te baat bu ci nekk dàndaate na ak baat ba ci des te baat bu ne xaal ju metti la ko waxee joo xam ne la mu wax rek loolu moo ne ci moom mas na ko ne nos ma mas na ko ne ñaas ma mas na ko ne jaay ma mas na ko ne taal ma te benn woyful mas naa dikk ci moom fekk euh, nim ko toppee ni mu toppee sëñ Tuubaa loolu wow toppin daa tumuranke ci kuñ ne yéen a bokk bàyyi mm-hmm. léeg-léeg nit xëcc ko day di ko dee naan ko ay seex Cheikh kii sa dooy bàyyi rekk la ngir umpale guñ umpale sëñ Tuubaa hmm. wala ay jël la ko daan def mas naa dikk ne ko nos ma mooy bënnal fii ni ñuy def gëléem bënnal bakkan bi def ci ak buum di ma wom mat ni ñuy def ak jur man nangu maa tudd sa mbaam boobaa ñii wax bàyyi seen wax ci mas na wax lool mas na ko ne dama bëgg nga ñaas ma ba ñu xam ne du ma sarak sab lar laa maanaam ab lar mooy nga dem ci àll ba jëndab jaam dikk ci kër gi di ko lëggéeyloo hmm. wala nga jënd sa jur dikk ñaas ko ba foo ko nit xool xam ne lii yaa ko moom maam Cheikh Anta sant sëñ Tuubaa ne ko ma ba ku la gis ku ma gis xam ne sab lar laa du ma sarak sab lar laa mas naa dikk ni ko jaay ma ndax sëñ bi léeg-léeg day am yitte mu ne ko jaay ma bu fekkee woo ma jaayee kenn jënd ma rek mën nga maa jaay fajama sa yitte man alal la du ma mukk sa waaye Serif Moulay Nasir bi mu ko bi mu ko bi mu ko jaayee mel ne mbubb bu mu mu yéeme ci joj jamono nga xam ne maam Cheikh Anta ab ab jaam la ko jënde woon mbubb moom mu sol ko ñëw nuyu sëñ Touba sëñ bi xam gi mu xam ne mbubb mi jaaruwut maam Cheikh sol ko sëñ bi daa xotti da koo xotti ne ko dalal di tàggu moom da ko xotti moom toogu doon daf ko daf ko yót ni ko tareet ba mu xotti mu ne ko demal tàggoog moom maam Cheikh dañu demee mbubb ma mbaaxaan la ko may waaye daa ñëw ci sëñ bi ne ko balaa sama xol a gën a sedd da ma maa war di jël taal ma loolu ko sëñ bi wax bu jëleen sama jëmmu taal ko itam ma gërëm ma sant ci loolu kon diggante nos ma mooy bënn sama kan def ci buum te bu ko sëñ bi nangoon it maam Cheikh nangu diggante ñaas ma mooy tàngalal ak weñ seet foo ma ñaas ci sama yaram foo xam ne liggéey lay doon ba faw jaay ma faj ma say soxla taal ma ndax amoo ci sañ-sañ ci dara du ci fekk ndax nangu naa ko pas-pas boobu ngëm googu doyloo googu wóolu googu yaakaar googu ah wax dëgg yàlla bu ñu ko seetee hmm. danañu fekk ne seexante nag dimension bu doy war taxaw na ko sëñ Tuubaa am na am na am na wàccuwaay nga wàcc waayu rëy ci pas-pasu ak taari bi ak ngëm gëm sëñ Tuubaa ndax gëm ak yaakaar ak doyloo mënta wees lool dafa am boo xam ne sëñ Tuubaa di génn xam nga noonu mu daan def doxantum yu gàtt yooyu maam Cheikh ngàbbal ko satala gi koy santu santu mooy bu sëñ bi waree ci fas bi yow yaay topp ci gannaaw yoroo ko bagas mm-hmm. waaye yoon wi muy jaar nag nee ñu Tuubaa la jëm boobu yoon wi lay bi daa ñëw gànc bi rabbaloo mm-hmm. nga xam ne ñax mi ni la rabbaloo mooy yooni sew yooyu nga xam ne mënoo cee jaar te lay bi ak suuf si takkalu sa yére ak sa yaram mm-hmm. bi ko sëñ bi jubal rek maam Cheikh daa daw taxaw ci kanam sëñ bi taxaw maam Cheikh daal di xala ko di béréngo béréngoo ci njëlbeenu yoon wi ba génn ji ca fakk xurwa yam mm-hmm. di wàññeeku ñëw jëraat bagage bi sëñ bi daal di jàll sëñ bi laaj ne ko seex bi loo lii loo ci jub mu ne ko dama doon bañ rek mu daqal sa yére yi di ko tooyal macha allah dama doon keroog sëñ Tuubaa fàggul na ko yu baree bare baree bari ne ko seex lii nga ma nangul nii waana ku nuy tudd rakk ku ko nangul magam lii nga ma nangul nii waana bu ko nangul kilifaam lii nga ma nangul nii waana jàmm bu ko nangul sëngam lii nga ma nangul nii waana bi bu ko nangul sëriñam ko ci nag ay ngañaay ak ay ngëneel yoo xam ne daanaka làmmiñ mënu koo tudd Maam Cheikh Anta noonu mu daan takkoo daw ci gannaawam rek fu mu toll topp ci gannaawam am na bis boo xam ne am mbokk woo ko boobu mu ngi ànd sëñ bi Cheikh baal ma ma gis la bala ngaa jàll maam Cheikh ñëw mun ne ko Cheikh lii moom bàyyee ko tey Cheikh lii baasu sago la Cheikh kii xanaa xamoo ne yéen a bokk bàyyi nga bëgg a mel ni jàmbur jël nii rek daal di wax ay wax <laughs> noonu ñuy baaxoo wax nga xam ne doy na kii man ba mu waxee ba noppi maam Cheikh ne ko jaral na ma benn baat dong mooy jaral na ma tànk bi dëgër ci sëñ ko ana kooku mu wax ko li mu lépp sëñ bi ko ana tontu mu ne ko damaa ko ne jaral na ma mu ne ko loolu rek nga ko tontu mu ne ko waawoo mu ne ko leneen loo ko waxoon lu dul loolu day fii lañuy ñuy tàggoom ak leneen loo ko waxoon lu dul loolu fii la ñuy tàggoom ak yow moo tax sëñ Tuubaa yàllaa gi mu yàlla nga xam ne lépp yàlla mm-hmm. yàlla rek amul jëreen yitte